équipement. Uh-huh. pour triage. Uh-huh. pour triage Covid 19 mu ngi nii. Uh-huh. léegi bu bu nit ki ñëwee soit muy malade mu mu nekk bañ a nekk malade bu ñëwee avant muy dugg ci biir par mesure de sécurité day ñëw jaar fii. bu ñëwee day toog bu toogee bu joxe nom âge adresse numéro de téléphone ak fonction wala moo dugg ci biir ñu xool température am defal ko gel laaj ko fu mu jëm.

est-ce que nga technique thermoflash température élevée est-ce que ça veut dire que dafa am Covid. déedéet. parce que les 38 non non non non non non loolu taxul nga am Covid. foog nga am signes signes donc mon tax ñu yow mi war nañ test. est-ce que est-ce que mën nga rappeler signes lan la euh, bon gorge. mot de gorge.

test yi. waaw par à peu près ñaar test ngeen def. à peu def test ñoo ko mën a xam. mais ñun ngeen am 10 tests au moins na ko. da ngeen ëpp na ko test ah, mais district bi fii la nekk mais dañoo sentir ni. Hmm. pratiquement boo xoolee ci Dakar district bi moo ëpp lu am Covid. Dakar mooy tax. waaw waxuma Medina Medina macha allah yàlla ñu dimbali. waaw mais kooku boo nee district. mais li si ëpp yëpp la commencé. li si ëpp yëpp Dakar plateau parce que boo déggee cas communautaire yi. Médina bu ñu nee Médina benn def Dakar Plateau ñett walla ñeent. mais lan mooy expliquer Médina chute bi mu chute mu yem benn benn. par benn benn. Hmm. waaw parce que ñu dañoo jël suñuy précaution ñu am na am na am na ñoo xam ne ni du ñu jaxasoo ak ñoom. léegi yéen waa Kër Docteur lan ngeen di digal mairie bi ngeen xam ne yaakaar ngeen ne bu ñu ko defee xëy na du ñu dellu ci lu métti. xanaa ñu waxtaan ak population bi ñu ñaax leen. Hmm. ñu continuer doubler d'effort. ndax lii ñu def nii vraiment succès la ci ñun du dañuy Médina ah doo fi gis yenn cas yi cas yu bari ñi fiy testé genn wàll gépp dëkk nu Médina. waaw man bëggoon naa leeral loolu tamit parce que à chaque fois damay damay dégg Médina benn cas Médina. non non non non mais sama laajte mooy ñuy fréquenté Médina lañ di fi jaay wala ñu fiy jënd. déedéet wala ñu fiy jaar léeg-léeg waaye ñëpp taxul ñu dëkk Médina. déedéet c'est que boo déggee ñu ne Médina dafa def test Médina. waaw bëggoon naa mu leer. dafa def test Médina te ñi fiy def test ñëpp genn wàll yëpp dëkkuñu Médina. loolu dëgg la mais test comme par exemple nga jege contact nga dëkk ko ko am. je dis je demande est-ce que ah. dépend rek. démb xam naa ko jógee waxtaan ñoo def ko. voilà. da gis ñu jóge Parcelles Assainies ñëw def si ko. sutura mooy tax voilà loolu la problème bi loolu la. am na ñuy jóge Kër Massar keroog ñu ngi recevoir koo xam ne mu ngi jóge ba Sébikotane xam nga Sébi suux sori na moom mooy fin wu Dakar. ñëw fii def si test mooy ñun waa Médina macha allah. ñun waa macha allah gàcce ngaalaama mais bu ñu naagu. nañu gën a mën a taxawaat gérer mesure barrière yi te suñu priorité. nekk école yi élèves yi ak marché Tilène bi te yaakaar naa ne bis ni ki tey dañuy tàmbali lañ daan def sécuriser marché bi sécuriser suñu doom yi ci école bi yàlla mën ñu muccal te dellu tamit waxaat ñëpp ni couvre bi ñu respecté ko rek jàmmam. monsieur lu ma la lu ma ci bëgg yokk. comme que yaay maire bi. loolu mën a jàppalee mooy ci marché bi. man ci marché bi laa dëkk. mais am na ñoo xam ne nii tey bu ma leen waxee takkal masque ñu saaga ma te loolu ma leen di wax seen intérêt la du suñu intérêt ñu nit. parce que marché bi ñu fiy jaay ñëpp dëkkunu fi genn wàll gi yëpp dëkkunu fi duñ fi fanaan te duñ fi yeewoo. waaw yaakaar naa dinañ ci bàyyi xel. waaw ndax configuration marché Tilène du marché bu am benn buntu kese mais bu ñu yàlla dimbali ba ñu am benn buntu kese ka taxaw ku takkul masque du dugg. mais comme que mbedd moo bàyyi ko dugg ci marché bi. Hmm. dinañu xool ak brigade bi nañ mën a def. ba imposer ñu ñuy takk masque. xam naa teg thermoflash dina métti mais au moins masque bi. masque bi moom ñu takk ko waaw. dolliwaat matériel bi pour lavage mains yi. voilà loolu loolu doog mooy sunu problème te ñu ñu nit ñu ngi lay gërëm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñu lay gërëm man mi dëkk waxuma ci waxu euh, pro euh, ci baatu centre bi. Mm-hmm. damay wax ci baatu waa Médina. waa Médina ñu ngi lay sant di la gërëm parce que bu ñu la gërëmoon parce que confinement bi passé def nga ci lu ja loo xam ne nii amul benn maire boo ci def. maak yow ñoo doon dem ci terrain bi. problème bu ñu am. boo ko yëgee boo ko yëgul nga taal sa oto ñëw sol say carax boo ñëwee nga négocier fexe ba ñu jël ñooñu yóbbu leen. confirmation est mën loolu. ah bii passé dañ daan dem léeg fekk ñu am feebar bi ñu bañ a wàcc maay obligé yéeg ci kaw. ci kaw wax ak ñoom bañ nangoo wàcc. waaye sama yaay ji nee na bi yoon moo ko def. waaw mooy bàjjenu gox yi tamit ñu ngi leen di ñu ngi ciy jàpp. bàjjenu gox yi tamit ñu ngi ciy jàpp bu baax. donc ci turu Médina. waaw ak ci turu ji fi nekk ñëpp. ñu ngi félicité di encouragé centre de santé bi. ndaxte di félicité docteur Jacques Ndour mi fi jógee. waaw joué yi am solo. docteur Mati mi fi nekk tamit jàmbaar la ko ko jàppale mu dem. te na ngeen am tey ci suba sax recruté naa ko ñaari infirmière des semaines prochaines ñu commencé ñëw agent de sécurité yi ñu ngi ni taxaw des domaines nañu commencé jël service. donc prévoir nañu cinquante millions ren dugal ko ci biir centre bi pour lépp changer pour ñu commencer nag fii di fees bañ koy rang dinañ jàppale personnel bi loolu engagement yi ma jël la. moo tax ñu budgétiser cinquante millions jagleel ko PMI Médina vraiment ñu am benn plateau de référence kon yaakaar naa ne ren kër gi dina changer bu baax te personnel bi aussi dina leen gën a motiver. pour nous nous savoir ce ci liggéey bu neexee donc je suis nuyu kenn sa ak sa docteur Fatma pharmacien pharmacienne district Dakar Sud en même temps centre de santé chez Ahmadou Bamba. donc euh, bu wax ci waxu fièvre. saluer d'abord. je vais commencer par saluer de M. le maire le fait qu'il se soit déplacé au centre de santé bi xool ak très important pour nous et ça nous encourage aussi dans ce que nous faisons tout d'abord, nous avons ngi ñëw triage à la porte bi lu waral euh, box bi et tout ça Ce nii boo monsieur le maire c'est waral euh, képp ku dugg centre de santé Nous savoir xam lan moo dugg centre de santé bi. parce que centre de santé bi ñiy ñëw pour consultation directement ci médecine district la Dakar Sud centre de santé de référence Cheikh Ahmadou Bamba. kon du polariser Dakar Plateau Médina Gueule tapé, face Colobane à Gorée prélèvement Covid nak avec la nouvelle stratégie lañ ko au niveau du centre de ce fait pour combien à peu près par jour ah, ces derniers temps on en a beaucoup vraiment là on peut on peut même dépasser les 35 prélèvements par jour par jour et même sur le côté des cas positifs le nombre que nous avions pour le mois de décembre il y a une augmentation il y a une augmentation parce qu'aujourd'hui, là où je vous parle pour la date du 7, on est à plus de 30 cas positifs. Donc c'est quelque chose c'est important. Donc c'est pour montrer, pour vraiment montrer que nous mingifi, donc il faut l'engagement de tout un chacun pour nous monter Engagement de tout un chacun, nous devons respecter les mesures barrières, le port du masque kenn ku ne war ngaa takk masque centre de santé bi ku fi dugg da ngay takk masque boo takkul masque doo dugg c'est l'importance du triage à la porte donc euh, respecter distanciation physique aussi c'est quelque chose de très important képp ku ci am symptôme lu munti doon aussi tamit les personnes âgées yëpp c'est dans le cadre de de la prévention mun ngaa ñëw ñëw boo ñëwee aussi tamit dinañ def war ci yow si nous avons une prévention bi laay njëkk di monsieur le maire nous bu ñu insister ci le port du masque parce que vous ignorez on est à côté du marché et là quand on sort parfois même on est un peu dañu xaw pas ça parce que avons takk masque donc nous devons sur la sensibilisation sur le port du masque te vous nekk que amul avons de le port du masque Nous avons wax waxu vaccin vaccin au Sénégal donc benn benn kii boobu rek le port du masque reste distanciation physique et tout ça donc nous nous accentuer nos communications communication sensibiliser la population wax les et on doit vivre avec tout en respectant aussi les normes et les protocoles du ministère de la santé et de l'action sociale euh, maïs ngi des ñëpp euh, di le maire euh, monsieur Bambefal. di aussi surtout présence am gis recrudescence des cas de Covid dafa nombre de cas commencé chaque jour nombre de cas yi wax ci gox district Dakar Sud di et plus spécifiquement dans la zone de Medina. Euh, Medina nak dafa nek ben euh, yéen mako gëna xam euh nit ñi dañ fi yéwo nit ñi aussi dañ fi fanaan nit ñi dañ fi yendu té aussi Medina dafa englobé euh, euh ay euh, structures yo xamné public la mais aussi amna aussi ay marché amna ay lieux publics amna aussi ay ay marché hebdomadaire mais aussi kenn waxul ne benn partie Soumbédioune bi nga xamné ci Medina la bokk donc fofu yëpp ay lieu de rencontre la dafay jël ay nit donc te xam ngeen ni fépp fu nit nekk rek il faut waxante laalante max dem te tey jii euh, Covid bi euh, dafa daf ñuy jàngal lu bari en tant que personnel euh, médical dañuy ñaan rek li nga xam ni recommandation yi yi nga xam ni monsieur le président wax na ko ak le ministère de la santé et l'ensemble de son équipe et de ses collaborateurs wax na ko rek nañ ko appliquer à la lettre te gis ngeen ni eh, teewaay monsieur le maire dañ koy rafetlu parce que da fay woné vraiment engagement té te aussi eh, dafa war aussi nek jangat pour képp nga xamni mo nek ci biir gox bi mais aussi mo nek ci biir Sénégal parce que du tiag ni Medina rek la feebar bi laaj am laal amna na ñeneen ak yeneen luñu laal té gis ngeen ni district Dakar Sud dafa englobé quatre communes te tous les jours da ngeen di dégg yeen communes ñukay wax donc lu am solo moy ñun ñëpp nañu booloo parce que liggéey bi du liggéeyu personnel de santé liggéey bi ñëpp la c'est la communauté te la communauté mooy lan euh, mooy population bi lépp lu ñu mën a def te boolewuñ ci communauté du mën a sotti te à travers la présence du maire gis nañ ni mi ngi moom fi toogal peuple la fi toogal plus spécifiquement la population de Medina. lii dafa war a def képp koo xam ne nekk na ci Médina mu gën a dugal encore ci biir xeex bi en tout cas le mot vraiment li may lancé mooy na ci ñëpp takk rip ci xeex bi taqrib mooy képp koo xam ne recommandation yi nga xam ne ministère wax def na wax na ko dañ ko appliquer à la lettre te aussi permettre képp koo xam ne euh, gis nga dara loo xam ne màndarga boo xam ne yow xalaat sa xel tey na jéemal li nga xam ne maanaam numéro téléphone yi ñu jox nga woote sinon nga jëm sa ay matukaay nga ñëw si structure de santé nga dépisté wu mais képp ku ñu dépisté daal ñu dépisté la na nga dem toog sa kër bul génn ba sa résultat ba ñu jox la ko bu la joxee nak sa résultat ci lañuy mëna xam ndax bo positifé dinañ xam luñ lay jox ak bo négatifé dinañ lay wax nga gëna renforcer manam ngay tok di moytu et puis li nga xamni mom lañu wax directive yi nga xamni mom lañu appliquer pour moytu euh jangoro bi nañ ko appliquer à la lettre en tout cas ma ngi jaajëfal ñëpp particulièrement monsieur le maire di rafetlu sa téway di la jaajëfal di xol sa di vraiment engagement bi ak li nga nekk vraiment dugal sa loxo ci biir ci santé té li wax ni la compétence la santé une compétence transférée yang koy deugal té yang koy def donc ak l'ensemble aussi de, de votre équipe ñi ngi leen di ñaanal di ñaan yalla lepp li nga xamni mom lañuy def yalla nañ ko yalla defal ñu ñu xex bi nga xamni mom lañuy def yalla nañ ko yalla defal ñu am ndaw mais aussi di gëreum aussi personnel de santé parce que personnel de santé ñoo fi nekk ñoy nekk en contact avec tout le monde di délivrer message te vraiment aujourd'hui lu bari bari gis ngeen démb monsieur le président ak l'ensemble de son équipe boo xam ne lu bari lu ñu wax l'implication vraiment li nga xam ne maire yi mën nañ ko def nañ ko def ak yeneen auto autorité donc di ñaan yàlla rek yal na yàlla yokk taxawaay bi yàlla yokk man man bi te chaque jour ngay ñëw suñu centre de santé di ñu nemmeeku ñun tamit ñuy ñëw nag commune bi di la nemmeeku donc vraiment loolu rafet na di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yalla lepp nga xamni ñu fi def dañ koy def pour population te yalla gën ñoo dooleel ñu nekk ben jërëjëf. mais nee nañ sa district mo gëna a touché à Dakar question di sama district mo gëna touti tuuti. Euh, touché touché touché. waa xam nga toujours bu ñuy wax rek de bu ñuy xayma rek di lañ wax ni parce que district Dakar Sud dafa am euh, euh région de Dakar dafa am quatre districts district Dakar Sud. Dakar Nord Dakar Centre ak Dakar Ouest donc loo gis ñuy wax rek TISTIC dañ koy xayma ci ay information ñun en tout cas am nañ ay information yi te parce que fii dafa am lu ñuy laalante maanaam commune bu nekk ak spécificité am na Dakar Plateau am na Médina am na Colobane Fass Gueule Tapée am na aussi gore donc ñun chaque jour dañ ciy liggéey di ci xool aussi di xool aussi ñi nga xam ni ñoo fi nekk maanaam toujours donné yi ñuy jox information ñun tamit dafa am liguey benen bu ñuy def bu am solo moy ñepp ñu ñu wax ni fi la ñu xol est-ce que effectivement ñi ñi wax nonu ñoo positif fi la ñu dëkk bu ko défé ñi nga xamni ne nekkuñu fi bokkuñu fi ñu génn leen fi jox leen ñi nga xamni ñom ñoom lañ donc liguey bi bu ñu dégg rek né mais cas mom bari na mais nak ñun dafa am liguey bu sew bu ñu xam dañ koy defaat ci biir di gëna encore toggaat xolaat nit ñi fan lañu dëkk ñu yóbbuwaan seen zone de résidence loolu ci lañ nek tous les jours ci lañ nek mais lu gëna am solo actuellement moy vraiment ñu ce que def suñu lay katan recommandation yi ñu wax dañuy sol masque di def distance physique mais aussi di laxas suñu loxo ak ay ak sabu wala buñu amul sabu ak ak gel. en tout cas recommandation yoy dal vraiment je lance un appel à tout le monde et particulièrement à toute la commune de Médina ak les autres communes yépp yi nga xam ne ñoo nekk si man Plateau face Colobane Gueule et Gorée lépp li nga xam ne moom la ñu wax ñun ko def respecté à la